tey jii la sénégalais yi gën a jaaxle ma am njàqare parce que booy wax nit ñi ne leen dinaa soppi seen dund moom moo waxoon ne bu ñu ko joxee réew mi en deux mois na changer Sénégal tey premier ministre bi dajale ñenn ci gouvernement ma dégg ko muy wax mu ngi teg xel sénégalais yi xam nga lu mu leen di waajal pour que ngeen ubbi seen bët te xam ne weer yii ñëw mooy gën a metti man ki ma dégg mu wax mooy sénégalais yi préparé wu leen te ci biir wax bi sax wax na ko nee na nu wuti solution yi ensemble waxuñu ko ensemble moom lañu sas moom moo fëgg dënam ànd ak ñi mu àndal ñu wër Sénégal di fen mu ànd ak ñu koy fenal ñu déggoo seeni fen moom mu dàq a fen ba ñu jox ko réew C'est ça la réalité. ba jox ko réew mi kooku ñu jox réew mi tey moo ñëw taxaw di leen wax ne kooku ñu jox réew mi kooku ñu jox réew mi dégg naa la nga ne mu ngi ñaaw na mi

nous avons devenus 6,5%. Alors que nous avons pétrole, nous avons gaz, nous avons une projection de 9,1% ou 0,3%. FMI, bim fi dit, fany avons ci ginaaw FMI, bim ñëwé digënté juin, juin bi passé, lako wañi. Yobuko 7.1 7.1 bi mu dellu si waatee ñoom waa FMI gis ne diggante juillet ak septembre réew mi nërmeenu na économie bi dematul nit ñi jaaxle nañu nit ñi secteur économie bu bari dafa daanu FMI daal di koy revoiraat yóbbu ko 6 point 1 gëndoo muy analise bi nga xamante ni Bougane Gueye Dany def na ko indi ko ci kii nga xamante ni maanaam mooy ñu gouvernement bi ginnaaw sortie bi nga xamante ni def na ko moom mi ci boppam nga xamante ni moo mën Macky Sall mu cuune bi mu xamul dara moom mi yàlla may xam-xam moom mi yàlla may benn baton boo xamante ni maanaam réew bu mu ko teg maanaam réew mi da ngay naaw moo ñëw xamal ni que mi ngi jëlee réew mi ci 6 point alors que 6 point boobu Macky Sall mi cuune moomu 2014 la ko yóbbu Sénégal Nous avons en 2024 nous mi am pétrole am gaz Nous dem ci 9.1, 10 comme les pays qui ont ni le développement Nous avons ñëw 6.5. 6 FMI mi mois de juin 2024 bi nga xamante le moom de fonction avril mai juin FMI nous ñu réew mi 7,1. Mon modèle de ne mi ngi jëlee réew mi ci six point cinq delloo ñu ginnaaw ci ku doon yaakaar xam-xam tey fan la koy delloo ci askan bi muy analyse Bougane Gueye Dany puis lu ñu mën a dégg la nga bëgg a Bougane Gueye da nga koy nangul li mu wax dëgg la nga bañ a bëgg a euh, bëgg a Bougane Gueye da ngay nangu li mu wax dëgg la mu wax waxu politicien li mu wax dëgg la mu ñàkk wax waxu politicien li mu wax dëgg la ndaxte munoo ñëw fëgg sa dënn ne mana mana mana mana ñi fi nekk ñëpp ay cuune lañu munoo fëgg sa dënd wër Sénégal ànd ak ay nit di wax lu safaanoog dëgg man dama koy rafetal yow ci sa bopp ngay wax sénégalais yi lu safaanoog dëgg nga wër Sénégal wax li safaanoog dëgg ñi la wër di wax lu safaanoog dëgg yow nga dàq leen wax lu safaanoog dëgg ñu jox la réew mi tey nga taxaw di am looy jooy di expliquer ana bâton magique bi ana solution bi ana cadre yi li am solo ba am solo moy wax len sénégalais yi dëgg mënu len xamu leen te waaju leen xam naka la ñuy def lenn la nak moy régressement bi nga xamante Sénégal am nako c'est pour la première fois dans l'histoire de 1960 ba ji alors que fi sénégalais yi ëppee woon yaakaar fa la seen yaakar tassé fi jeunesse bi ëppé won yaakar fa la seen yaakar tassé kan mo tass seen yaakar jeunesse ni

ndaw yaa ngi dee ci géej bi gisuñu benn yoon nga prononciation alors que chaque jour nga taal sa caméra dem ci géej bi taxaw di yéey di yàbbi rafet na sax tey balaa ngay jël parole ci sa point de presse nga wax ci ñii nga xamante ni dee nañu ci géej bi nga wax tey ci accident yi nga xamante ni ñi ngi rey doomu aadama yi te démb ngeen takkoon seen micro takk seen rajo en tout cas ñi gënoon cuune ci Sénégal muy Macky Sall ak régime am wax dëgg yàlla yee nañ leen fu ñu leen yeeyee nag maanaam du man maa ko wax. dañuy dem fële de New York 79e assemblée générale des Nations Unies déglu du discours ki nga xamanteni le président de la République.